tey eh, acte trois bi man sax duma wax ci yeneen communes yi parce que xam nañu yeneen communes yëpp surtout les communes rurales ci déjà problème yu ñu am mais au niveau de Thiès acte trois bi problème la ñu gën a indil ak ay solutions parce que avant avec la commune de Thiès on avait un budget de deux milliards mais tey am nañu quatre collectivités locale amul benn collectivité locale bu egg bu mën a egg cinq cent millions. peut-être ville rek moo mën a dépasser 500 millions egg 600 millions mais les trois communes ku ci nekk boo atteindre 400 millions si nga yem man commune Thiès Nord avec la commune d'arrondissement on avait un budget de 200 millions mais une masse salariale de 30 millions par an aujourd'hui la ville avec l'acte 3 ñu ni ñu dañuy jox patrimoine ville man Thiès Nord patrimoine ville bu ma jot mooy le marché central le marché central bu ñu ma ko joxee eh, sama budget dem ba 400 millions mais bañ may jox marché central dañ ma jox dañ ma jox personnel ne ma naa leen fay te personnel boobu bu mu ko xoolee day egg sept à huit millions de salaire par mois mais sans compter aussi les charges yu nga xam ni war na commune Thiès Nord si marché bi maanaam nettoyer le marché collecteur yu ngay fay sécurité bu fa nekk yëpp danga koy fay loolu dañuy jëlal lu mat trois millions par par mois donc soo ko xoolee euh, personnel bi ak ak ak charge yu nekk biir marché central day li nga xam ni moom lañ fay jëlee. parce que nit yi dañ jul xool dañuy wax marché central mbooloo ba la ñuy gis mais lan lañ fay am parce que ay taxe municipale la dafa tuuti. parce que non dañuy fay xam nga juuti ñaar fukk la ñuy fay. ñaar fukk la ñuy fay xam nga ñaar fukk pour nga am ñaar fukk junni il faut que nga taxé junni nit taxe bi moo ndaw. cantine ñaar junni cantine la cantine bu ci cantine moyenne bi mille 4000 mille donc yooyu mooy difficulté bi et wax naa leen ko waaw waaw mais ñu ngi ciy góorgóorlu wax naa ko sànq nee boo jëlee commune Thiès Nord ñaar fukk quartier ak benn mais tey paradoxe bi Médina Fall mi nga xam ne juróom fukk junni nit a fa yeew quartier nga xam ne bu day noonu nga xool Escale Nord nga xam ne ñaari junni nit a fa yeew mais Escale Nord boo jëlee téeméer si ñu wàllu koppar téeméer bi juróom-ñett fukk yëpp mar Escale boobu moo ñu koy jox boo jëlee Médina Fall mi nga xam ni moom moo gën a rëy mais mënul du contribuer bu dee contribuer si wàllu recette ci commune Thiès Nord du weesu juróomi million si at bi kon donc day wan ne nii paradoxe boobu la ñu am te Madina Fall ci wàll soxla si wàll ay problème am moo ëpp junni yoon donc loolu day wan ni jafe-jafe bi nga xam ni moom la ñu am pour def ay réalisation askan gi teg suñu bët développé gox yi mënuñu koo xaar ci communes yi boo jëlee juróomi téeméer ak juróom fukk communes yeeg juróom ñaar Dakar rek ngay dem nga yooyu peut-être mën nañoo def ay réalité te foofu état bi aussi da ciy sont concentré ay moyens parce que Dakar déjà c'est la c'est c'est l'état qui prend en charge tout ce qui est nettoiement te donc c'est des communes yu nga xam ni euh, infrastructure yu am doole ñu ngi fa mais boo xool loolu yeneen communes yëpp mënuñoo développer parce que amuñu ay moyen parce que man tey sa commune Thiès Nord awma possibilité investir lu mot cinquante millions yu nga xam ni damay fay fournisseurs yi su may investir bu ma dépassé cinquante millions mooy wóor ne ni dinaa am plus de vingt millions de dépenses engagées non mandataires parce que charge salaire yi su ma ko defee ak li nga xam ni mooy dem si secteur sociaux yi xaalis ba jem moo tax ren dañuy rafetlu góor euh, parce que état bi doon na jóge si fukk million ak ñeent lañ doon ñu jox at bu nekk pour ne def leen ay réalisation xam nga fukk junni ak euh, fukk fukk millions ak ñeent loolu lu ndaw mais ren fonds de concours bu doon def quatorze millions yóbbu nañ ko quarante six millions. PACASEN bi bokk nañ ci donc PACASEN bi amuñu ko ñu yóbbu ko def ñu am 82 millions mais du coup commune Thiès Nord day mën a def ay investissement yu askan bi def moo tax fii ak 20 juillet def nañu appel d'offre bi parce que on va injecter 60 millions si désensablement wu route nationale bi nga xam ne mooy traversé Thiès Nord maanaam premier pont ba kaw Kawsara suuf bi dañ koy éliminer def ci pavé mais également la route Morolan tali la bi nga xam ne amul trottoir dañ fay def mais du coup dinañu am capacité investir lu mot 22 millions dans dans l' extension du réseau donc yooyu bu ñu ko doon am xam nga déjà 40 million nga am rek ak sos ak 80 million nga mën a def luy nit du jis loolu moo tax idée bu xalaat bu Idriss président Idriss amoon mooy commune bu nekk dem jox ñu jox ko un milliard d' investissement loolu bu ñu ko defoon juróomi at commune yëpp dem mais le développement mënul dem nekk ci kaw c'est-à-dire tey ñu ñu fal ba fu ñu toll nii ñoom plutôt dañuy xool seen prestige personnel mais le développement local la développement du pays da ngay yaakaar ne ñoru leen parce que tey ñoom ku ci nekk bëgg na bàyyi ay way si gën ginnaaw maa def lii maa def nii Séwo Léopold Sédar Senghor amoon na Sorano Ablaye Wade na ñëw na naa naa am sama grand grand théâtre Macky Sall na ñëw naa am centre Abdou Diouf Ablaye Wade am na aéroport naa donc ay c'est des investissements colossaux yu nga xam ne day lekk alalu réew mi te pratiquement gox goxaan yi dem kenn demul fenn tey boo génnee Dakar Thiès lépp désert la xam nga man lu ma jàpp si ville wax am na ko ko wax léegi si si seen seen seen seen seen naataango yi nee na ville est-ce que bu ñu bu ñu amoon courage waruñu ko euh, ban euh, suñu po bu déggee ñuy wax mooy est-ce que amati na njëriñ man lu ma jàpp mooy ville bu fekkee dafay war a nekk pour jouer euh, un rôle maanaam gérer intercommunalité bi budget état moo ko war a alimenter mais les communes ñu bàyyi leen. seen teritoire ku ci nekk sa territoire lépp lu fay patante recette yow nga mun ko jël loolu dina la mun a permettre nga noy mais bu fekkee ville bi dafi nekk euh, ba pare recette am mu war ñu euh, les les recettes locales les impôts locaux war ko alimenter day indi problème parce que day naxasal commune yi maanaam tey ñeenti collectivité ngay am mais ku nekk day raam kenn du taxaw maanaam tey bu ñu bu ñu ñemee rek mooy ville bi kenn wo man jàpp naa ne bu war na mën a fi nekk parce que am na rôle bi nga xam ne war na ko jouer maanaam li nga xam ne ñeenti communes yi mun nañ ko bokk moom ñu dénk ko ko mu daxal ko mais bu loolu amul fonctionnement am. ak lu koy permettre mu def ay action état bi jël ko en charge comme nu mu defee conseil départemental. déjà collectivités locales yi moom politiciens yi ñoo koy ñoo koy alimenté donc bu amee ay divergence politique forcément day impacter sur le non du question du parce que euh, li nga xam ni moom mooy moo xew ci ci mairie ville de Thiès xëy na peut-être benn jotaay dinañ ko gën a leeral mais ku ci nekk am nga ci sa taxawaay ak sa gis-gis ak part de responsabilité. xam problème mu assainissement état moo ko war a gàddu. donc mënuñoo wax ñun li nga xam ni moom la ñuy def loolu li nga xam ni moom la ñu jàpp ni chaque année moom la ñuy def mu nekk ay action de routine mooy nga curer canaux yi mooy nga nga dagg garab yi balaa muy daanu si kër yi mooy nga désensabler tali yi loolu la mais loolu réglé wul inondation parce que inondation il faut que ñu am un système d'assainissement moderne bu taw amee trente minutes ndox bi am fu mu jaar dem loolu amul da même dans la ville de Thiès à plus forte raison dans les donc commune boo dem amul bu ñu nee la demal ci service technique bi nga ne ko jox ma seen plan d'assainissement amu fa quartier yi nu leen même ci lotissement bu ñuy def les travaux terrasse de terrassement nga xam dañoo war a niveler suuf bi balaa ñuy dagg ay kër jox leen ko mais quartier yi si boppam niveler wul da ngay gis tout quartier bu nekk am sa ay ay say point bas donc ba léegi sottiwul ba léegi si site baa ngi fa nee nañu ma xaalis baa ngi fa waa waa tout population yi léegi ñu ngi si ay tolof tolof ba léegi liggéey ba eggul donc yooyu mooy jafe-jafe yi. ñu ngi bu bees marché bu bees ñuy wax ay milliards la Lamine Diallo ndax mën amul benn këyit bi nga xam ni jot naa ko bu may buy buy firnde que ni am na lu mel ni marché bu ñu namm Thiès Nord xam nga loolu mooy paradoxe bi parce que mënuñu nekk collectivité bi nga xam ni moom moo war a moom moo war a mën a accueillir. équipement marchand bu dey noonu te la collectivité locale n'est pas informé dégg nañu daal tout le temps le maire Talla Sylla mi ngi koy yëkkati moom xëy na moom moo xam ak bagaasam moo ko xam mais ñun cees Nord xamuñu fan la ak naka la. xam nga d' abord dañuy war a xam nga la foncier d' abord dama bëgg mu leer nañ man foncier bi dañ koo poqati sama loxo acte 3 bi dafa ñëwoon si dévolution bi ñu jox ma lotissement wu poñan bi 700 parcelles la bañ demee ba si biir bañ gisee ay ange la ñu ne xaw ma ISE moo fi jaar def rapport am conclusion yi mu ni maire de la ville mooy doon président de la commission d' attribution ñu génne ñu si. lotissement boobu Thiappong nekk ba ma Poyen nekk amee amee blocage Hélène Tine moo formé le collectif des propriétaires de champs dem dox ko ak ak ak ñu ma ko war a doxal ñu séddale seen terrain leneen li nga xam ni moom la ñuy déggandiku ñu ngi def c'est des régularisations de parcelle maanaam ay nit ñoo lay bind en tant que maire c'est-à-dire le collectif de le comité de quartier de Madina Extension nañu fii de fu ñu dëkk am na ay espaces yu nga xam ni nit yi dëkk nañ ci. mais amuñu numéro kër yooyu dëkk nañ ci ba pare dañoo bëggoon maire nga nga nga nga nga régulariser ñu suñu kayit man du ma régulariser bu ñu jëfee demande yooyu su ma ko jotee dama koy transmettre domaine mu régulariser jox leen seen numéro donc si yooyu la ñuy def loolu mooy xew Caponk par exemple si les cartes population ñooy bind signé par le délégué de quartier ne ñun de si lotissement Caponk bi dañ ñoo léser woon ñun ñu yoroon borom tool yi mais nag fii gis nañu ay poches yu nga xam ni bu ngeen ñëw buñ ko euh, suñuy géomètre war nañu ne mun na génne ay kër ñun ñu réglariser ñu nga xam ne dañ leen leese woon bu ma jotee demande bi dama koy transmettre ñi nga xam ne ñoom lañ ko woo ñoom ñooy war a diligente ñoom itam ñu diligente ko benn maire xanaa maire buy xaru mooy nekk espace boo gis nga la ko ak sa jël ko def ko xaalis def sa poche loolu ay xam nga loolu lañ fi nekkoon doon wax jatara sur le foncier jaay na terrain jaay na lii amul mais au finish dinañ ko jàpp dinañ ko lii c'est dit n'importe quoi parce que nag dëkk bi c'est un état le maire ne peut pas se permettre de tout faire donc il faut que les bëggoon naa ci def sax peut-être da nga ma jox occasion ni mais bëggoon naa ci def benn point de presse bi conférence de presse bi nga xam ne pour leeral sur le foncier nga xam ne ñun communes yi nañ ñu ci kacak nañ ñu ci génnee parce que et man je me je vais battre pour ça parce que lettre yi nga xam ni moom la moom la ministre de l'urbanisme bi ba woon ba ñu bëggoon modifier le lotissement de Capong de de de de Capong extension bañ koy modifier parce que 47 hectares la woon ñu dem borom tool yi dagg ba mu des xaw ma une trentaine d'hectares mais bañ ñee dañ koy modifier pour mun a continuer lotissement bi ministre bi del d'urbanisme bi da leen ni lotissement bi Thiès a koo def moo ko war a def ampliataire bi man maa man lañ ko bind mais dañ maa nëbb courrier yi ba ñu séddalee terrain yi ba pare laa soo ko jot courrier yi xam ni man lii man sama yeloo léegi nag comme préfet bi fi nekkoon moo fi doon wax rapport IGE conclusion bi nee na man dinaa jël samay responsabilité man am na lu nga xam ni li nga xam ni sama commune Thiès Nord la eh, te yoon may ma ko dinaa ko eggale waaw mais li nga xam ni moom moo fi ne moom la coow nii maire ba def nii loolu ay waxu kasaw kasaw la te dama ni man du ma peut-être du ma jatara parce que ku yàq sama der te amoo preuve dañ la yóbbu si yoon. décharge bi ay population ñoo population Kër Issa d'abord moom ma bind. nee ñu maire kenn mënatu fee dëkk xanaa ñu léegi lu ñu dese mooy tux parce que kenn mënu def tey boo demoon la les services de la santé bu ñu demoon def ay tes si si si si population bi ku ci nekk di nga am problème temps respiratoire parce que lu mu doon jur foofu les riverains binduñu ne ñu mënatuñu fee ngénte mënatuñu fee dëj ndaxte saxaar baa ngi ak xet gu bon bi man si laa tàmbale woon doon def ay travaux de remblai si noonu si la si la si la la famille am ñu jóg ne foofu amoon nañ fa ay terrain euh, famille njëgeen bi ne aussi am nañ fa ay terrain parce que directeur ñu ne ñoo moom hectare yi man leen def leen ay demande de régularisation mais man sama rôle en tant que maire mooy lii li nga xam ni population yi jooyte nañ ma ko ne lii muru fee nekk man ma def samay travaux de remblai maintenant bi après yéen ñi nga xam ni yéen a wax ni yéen a fi am ay ay cër ku ci bind sa demande de régularisation ñu régulariser la donc loolu la demee te tey képp ku dem si population je crois que euh, Elisabeth demoon na si benn réunion Kër Issa mais defe naa ne si biir kàddu yi sax am na ku ni monsieur le maire boo paree jox ko franc-maçon yi parce que ñun lu ñu soxla mooy na fa jóge parce que ñun ñoo xam lan la ñuy daj woote nañu assemblée générale bu mag bu Kër Issa parce que coow li dafa bëri woon maire baa ngi dagg dagg ñu woo population population seen bopp ne lii depuis 56 ba léegi pax baa ngi fa paxu euh, kamb gi nga xam ni 8 mètres la de profondeur ay mbalit kese nekk fa kii ñëw sotti fa chaque jour il mettait 2 millions d'investissement pour mun a ñu éliminer carrière bi pour population yi am jàmm mais nag ngir yàlla Sénégal il faut ko Thiès waay li li nga xam ni moo fi nekk muy soxor ak yeneen yi ñu bàyyi ko ñu bëgg lu baax. je crois que tey boo jëlee communes yi muy la ville de Thiès sax mun naa ko défier man lu ma def ci extension kenn defu ko parce que man. samp naa samp mais yoon mooy aw ma sax compétence bi. mais c' est des de pop yi nga xam ni pressantes de populations bu ma la waxee samp naa poto poteaux 112 poteaux ak morom ba c' est pratiquement 5 kilo 5 kilomètres def naa ko te ren dinaa sampwaat lu mat 60 poteaux donc si laa nekk. pour wan ni leen ni même lu dul suñu compétence bu ñu xoolee ni ça c'est une demande pressante des populations mais dañ ciy taxaw. waaw ensemble pour la localité moom benn euh, xalaat la boo xamante ni pratiquement dañ toog waxtaan si pour xool tamit nan leen mën a àndee pour mën a euh, gox bi mën a mën a mën a gox yi mën a avancer parce que boo xoolee ci bis yi paase ci at yi paase euh, am na plaidoyer boo xamante ni daanaka ñi dëkk zone nord ñu toog waxtaan xalaatan si. pour que ñu def benn plaidoyer sur la communalisation de Thiès yaakaar naa loolu moo juróon ñu érigé woon Thiès en commune d' arrondissement bi loolu amee tamit yaakaar naa li ñu njëkkoon mooy que ne Thiès rek ay commune d' arrondissement la ñu njëkkoon def mais bi acte trois bi diggee gis nañ ni communes yooyu doon défini ay communes en plein exercice ci loolu tamit gis nañ ni am na ay am na ay problème am na ay am na ay am na ay problème léegi nag ci loolu tamit war nañu war a mën a daje waxtaan xool yan voies et moyens yan lan lim proposé par rapport ak li nga xamante ne moo nekk si communes yooyu parce que comme askan wi ñoom ñoom ñoom ñoom ñoo fi nekk te lépp luy sox ko dañ dafa dafa war a jógee ci askan wi def des propositions bu defee état bi mën a appuyer sur ces propositions parce que ñoo gën a xam yan problème ak yan jafe-jafe yi la ñuy dund kon donc jaar na askan wi di toog di xalaat di def des propositions du bàyyi bañ a bàyyi rek état bi di di indil wala ju kenn kii di jóg mais au moins dañuy jàpp ne au moins li yëpp li si war a xam dafa war a jógee ci suuf jëm vers le euh, vers vers le sommet. bu weesoo yenn jafe-jafe yi nga wax yan avantages lañu mën a jàpp ne communalisation bi indil na ko population waaw communalisation ak ak communalisation pratiquement ak yi nga xamante ni indil na askan mooy kon gis nañ ni dina permettre population mën a jigee ñi nga xamante ni ñoo leen di ñoo leen di administrer kon donc loolu avantage la mais loolu tamit doyul. mais que di ñoon tamit dama war a ñoon comme jigéen jege ñu mën leen mën a déglu ko tamit par rapport ak seen i xalaat ak nan leen mën a defee pour que loolu mën a avancer pour mën a indi ay propositions yu concrètes par rapport ak développement euh, cité yi nga xamante ni moom lañu moom lañu moom lañu moom lañu seq daal. jëmuwaay bi mooy on va faire des propositions parce que fi ne nii ci bis yi di ñëw dinañ xalaat taxawal benn atelier. atelier boo xamante ni dina xam ni nga xamante ni ñoo ñoo ñoo mettre en œuvre l'acte 3 ko defee au moins ak ñoom ñu toog waxtaan si def des propositions concrètes comme ni ñu ko defoon ba Urban Thiès ñu origine ko en commune d'arrondissement acteurs yëpp vraiment ñi nga xamante ni am na avec les services déconcentrés de l'État ak ñi nga xamante ni ñoom am nañ ci xam-xam ci yëpp vraiment dinañ leen convier à un atelier ñu toog waxtaan si loolu.